down.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 mooy alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin su ñu ko yëkkee ci turu benn jëmm rek la ko yëkkee mooy sunu sang bi sunu wasila di Chérif Mohamed Lamine Aydara uldu Cheikh Cheikh Mohamed Cheybat uldu Cheikh Mohamed Badalul Maamin di setu Seydina Mohamed Ali salaatu wasalaam di wax alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bu ñu suñu borom subhanahu wa tabaraka wa taala ci coobareem ak mbaaxam xéewaluñu maamam Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam sanga bu tedd boo xamee ne moo tëdd na Madinatul sanga bi xéewaluñu lislaam bi nga xamee ne dafa boole jullit yépp di ay bokk macha allah jullit yépp ay bokk lañu sant si yàlla bu baax a baax sunu borom bokk googu moo ko sàmm saxal ko yaxanal ko dëgëral ko boo wax ne ku ko dog mu dog la waaye suñu borom daal bii séddale cër yi gannaaw boo ñu nangoo dogalu sunu borom ba mu defee jabatu ali bayti nabi diineem ju sell ju màgg ji daf am ñu mu ko dénk ñi mu ko dénk kay ñooy ñekk nekk représentant sur terre représenté ñi te jinni ñoy daal ñooy imam mi ñoy ñoy imam ratib te yalla mo leen cëral yonent ali salatu salaatu wasalaam yëkkati leen ci yi gën a kawe macha allah fa tabarakallah imam yi bax nañu imam yëpp cër bu la suñu borom doxal waye sang bi tok suñu kanam dal kenn ku ne xam na ko gis na ko dégg na ko mooy El Hadji Moussa sam le grand imam de la presqu'île du Cap-Vert nominément ñu appelé que l'imam de Dakar macha allah imam ñu ngi lay dalal jam am nañu mbégte lool ku déggee rek ni imam ratib de Dakar Alioune Moussa sam imam de la presqu'île du Cap-Vert de cette communauté xaas bi ak jot bi ak deew bi kenn ku ne xam ne su jógee yëkki tànkam lislaam rek imam jërëjëf yàlla na yàlla fay waaye mënul demee noonu ci biir lislaam bi yëpp na suñu borom sàmme bokk gi yow da ngay sàmm bokk gi di ko nas nu mu gën a rafetee yàlla na li yàlla dafay jàll yow day macha allah la ñu la xamee ci biir lëbu gi ñu bokk kenn ku ne xam na ne sa tànk bi noonu la gàtt ci dem ji ci seeti kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala duguloo ci bureau yi dugguloo ci kilifa yi la kenn dara loolu de dëgg gu wér boo xam ne yaa bokk ak cër Mamed Lamine bii xam ne dafay wax ne sa doom la yaay waajuram sa sët la kilifaam nga moo tax sant bu baax a baax bi nga xamee ne yéene nga ko namba ko yàlla dogal nga ko at yu bëree bëri suñu borom di ko door a dogal alhamdulilahi rabbil alamin imaam ñu ngi lay dalal jàmm ak imaam bi nga àndal macha allah imaam Moussa Diagne yëpp sa turando ak sam di njaboot gi yëpp daf ci am mandarga yoo xam ne li ñu jublul ak dollante la waaye sa dee bi matale na yëpp doy na ñun ci teraanga ci bésu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ci mbooloo mi fi daje ñu baax ñu dañu ci teranga ñu ne imam Alioune Moussa Samb le grand imam ratib de Dakar teew na la waykat ba waxoon rek am na ñoo xam ne fu mu ñu teew moo gën fu ñu teewul seen daraja ak mandarga imam ñu ngi lay jaar ci turu taalibe yi fi teew yëpp mënuñu lim ñëpp waaye li ko daan defee mooy rafet rek defati nga ko noonu yow it fi yàlla bàyyi mu yàgg lool te ànd ak wér Alaaji Abdal Si Dabaax daan na wax naan ba faw day kenn amu ko te mënta nekk waaye ba mu yàgg nag mën naa nekk yàlla yàgg te ànd ak wér barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, suñu bàyyi duñu ko téye mu yàgg ndax moom ku ne xam na responsabilité yi mu yenu waaye bu doon suñu sago day ànd ak ñun sax ca cérémonie ba <laughs> toogandoog ñun jëmmal ñu wax dëgg yàlla wécci waaye wax dëgg yàlla kilifa day am mu toll foo xam ne ah, téye ko du doon du doon sax luy luy jàddu ne dañ koy téye taxawaayam ci ndakaaru waaye itam jëfam jur yi xam ni saa su taxawee ci minbar bi ba yëkkati kàddoom Sénégal gépp danañu jëriñu ci sa kàddu bërki démb nga def teraanga joo xam ni laaj lu jëm ca xadara Seex Seydi El Hadji Malick muy som xam ni ci xaalis takk ci ay million ñu ni imaam waaw lii muy laaj lu tax mu di ko laaj coow li bari lool waaye keroog dégg naa sëñ maa yi mi nga xam ni mooy xalifa seexal lislaam daal ñi nanu dal ba joxe exemple ci yow nekk te booba la nga doon laaj jëmul fenn fudul ci jumaay Tiwaawan ci néegu yàlla bii nga xam ni tey ñoo ngi ñaan Serigne Babacar Sy Cheikh Seydil Mouhamadul Mansour yàlla may ko wér ba mu ubbi ko ku ne naan waaw imam 1000 francs yi 1000 francs yi ñëpp kenn ku ci nekk am noo koy interprété waaye keroog sëñ Mahi xalifab seex al islam bi mu jëlee def ne ah, gaa yi nanu dal lu ñuy waxati nanu ko xool tase nekk laata mil mille yooyu fekk na nga takk millions yi jëmi Tiwaawan ëtt boobu nag di ëttu kër seex Sidi El Hadji Malick fa la seex sada bii daan daan daan daan takk xaymam ca kon jàkk bëri na ñoo xam ne tey ji ñu seex sada bi defar foofu la leen defar moo tax boo toogee nii di imam bu grande mosquée Cheikh mohamed Lamine tok ni am way wu reuy ci dakar nga xamni kenn jeppi wu ko ci kan mama mi ngi bay waram ci l'islam Cheikh mohamed Lamine kenn doxul ba gis ko foko wote li nga xewle tay wote bi nga wote tay tay ba khalifa Cheikh Sadou Abi nga xamni tay mi ngi dakar du yag fi ak ñaari fan mu wàcc ci sa bi lolou waxuma juttu bi waaye sa jikko bopal ko may damay abbu juddu bi de du ma du ma dugg ci juddu bi de waaye ci sa jukkoy bopp yàlla bi muy tagg yonent bi ci jukko la ko tagg mu tax Cheikh Amadou Lamine lu ne mën nga ko am dama wax ni bërki dem ci tànt ab sëriñ sax bu ñaawee bu muy dem baas na yónni la seet ci taalibe yi ki gën a rafet mu di ko yónni waaye yow fu la neex daagul ndax yonent bay sa maam taar ba ca yonent bay nekk ci yow kon bu imam toogee nii jaraaf yi toog saltige yi toog ñépp toog loolu say jikko bopp la imaam yow la ñëpp déglu ndax sa kaddu am na njëriñ lool na nag toog nga ak surtout rasulillah sallallahu alayhi wa dañ lay bàyyee kaddu taala wa barakaatu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngiy ñaan shérif bu may ñu ndigal ñu wax ci barke maamam daa ngi wax nag loo xam ne سنة قوة لما يوخ موي لان لما بغي نيو خامني نيون ليغوي نيون ليغوي لا بي نيو دوغ تي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم موغي دوند اي اي ها واو بني دوجي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم مريدون لتخ سنوي مام يونيكون إثيوبي محمد صلى الله عليه وسلم يبلون إثيوبي فين فين فين فين ba lañ bañ fa leen fekkee wala mag ña jële lislaam bi indi ko fii dama wax ne suñuy maam ñoo tuube foofa jële lislaam ba indi fii firnde laa leen ci jox ju kenn mënul dindi maam limaamu moom ak malik Malick Alaaji Malick Sëriñ Tuubaa la mag te maamu ñii ñooy ñi fi jëkk ñëw xaadir yi ñooy njëkk ñëw ci lébu yi fukki ci ndakaaru ak ñaari yépp mag ñi fi newoon ñépp ci loolu lañ bokkoon ay xaatir lañu woon dañ naan sampa keer ci jàkk duy tama duy tamakeer tama tamakeer ah bi mag ñi daan samp ci jàkk ji bi day am pon bi am paris ñu ne ku bëgg a tux wala nga bëgg a foon ku julli foon ku julli tux parce que diin seen diine daganal na ñu tuxee seen pon boobu du dëgg kon ñoom ñoo jiitu ci dëkk bi maamu xaadir yi ñoo fi indi tarix ñoo fi jëkk indi tarixa ñun ci lébu yi tarixa lañ ñu andil kenn tuubaluñu tarixa lañ ñu andil maam limaamu moom ak alaaji Maalik maam limaamu papaam ngi tudd alxasan caw alxasan Thiaw yaa ko ci diine ku ko jur baayu alxasan Thiaw ñaata at la war a doon kon liñ leen wax ne leen ñun kenn tuubaluñu dañ ñoo fekk ci lislaam sëriñu xaadir yi biñ fi ñëwee dañ ñu fekk ñu nekk jullit alaaji malik bi mu ñëwee ñu fekk ñu nekk jullit sëñ Touba bi mu ñëwee dañ ñu fekk ñu nekk ay jullit kenn tuubaluñu ñun duñu ay tuubeen lébu yi duñu ay tuubeen suñu maam yi jële woon fa lislaam ñoo ko fendi maam Alsan Thiaw mag la waay ku jur maam li maamu mag ga waay te maam li maamu moo mag Alaaji Malik li ñu bëgg a wax nag moo di ne ni seen imam liñ ñu andil diine la diine nag dafa am lu ko tax a jóg bu ñu waxee ne taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan ak taawun ci li ci yàlla santaane mooy soppante bëggante wóolunte sagalante di dimbalinte équipe yi ngeen gis ñi di ko forme yëpp ci taawun boobu lañ ko jëlee parce que solidarité ak sociale ci la am te diine ba mu jeex solidarité ak sociale rek la soppante bëggante wóolunte di sagalante di suturaalante di dimbalinte te képp kuñ la wax ne jullit la amuloo sañ-sañu bañ kaa bëgg su fekkee ne sa njullit dëggu na lu tax kuy julli ku nekk ci yéen fatiha lay wax ginnaaw bi mu waxee allahu akbar bu waxee allahu akbar fatiha lay jàng bu ñëwee ba ci iyyaka na'budu du wax iyyaka a'budu iyyaka na'budu yow yàlla yow kese ñun àddina bi yëpp yow la ñuy jaam wa iyyaka nasta'in sàqu ñu ndimbal ci kenn du dul ci yow ñun ñaan ñu bokk ndey ak bàyyi bokk kër gi du ñu tuddante te ñu ne ay jullit lañu te ñoo bokk ndey ak bàyyi te bokk kër gi kon ñu ngi fen maa ngi yow ñoo bokk ndey ak bàyyi ñu ne ay jullit lañu bokk kër gi salaamaaleykum maaleykum salaam rek la mooy dox suñu diggante ku nekk dem kon li ñuy wax ne taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan newul ci yéen dimbalinte ci lu bon yàlla na bu ko kenn def soppante bëggante wóolunte yéenante di sagalante di suturaalante loolu la dina sante assalaatu tanha anil faxsaay wal munkar lu salte lu ñaaw lu beggandi dit de sa personnalité dit de sa dignité il tax fait un ñu ne le fu nit ñi seen noppi loolu ku mu doon sa jikko te ne nga doon julli na nga xam julli nga doon julli amalu la parce que julli day raxas sa lépp loo bonle ba mu jeex su jeexee daf lay yóbbu nga am ci ragal yalla té nit bu démé ba ragal yalla ci lay commencé am lu muy jomb ku ragalul yalla do jomb dara ku ragalul yalla do jomb dara lu la neex def kon diiné yépp li taxa jom moy li shérif woote ñi fi nek ñepp li leen war dañu wara a waxu ñu ne nañu xamanté dédé dañ ne nañu bëggante ñun ñi ne ay jullit lañu jullit fu mu gisee julli rek li ko war mooy mu bëgg soo gisee day xewul Europe mooy lan nit ay nit yu bokk fenn fu ñu dëkk lii tax ñu xam ne kii dëkkoon fii newatu fi mooy day jékki-jékki rek muy xeeñ ñoo xam ne nit ku nit ku dee fi nekk lu tax loolu parce que solidarité amul su fekkoon na jaxasoo soppante bëggante wóolunte di waxante di dimbalinte am loola du am ca foofa te mu fay am ni dangay ngay dee bay yàqu te kenn du ko yëg kon diine li mu leen sante mooy lii nga xamee ne moom lu shérif woote lii mu leen woo nii bu leen ko xeet lu am solo la lool ci lii lañuy ñuy baaxee ci lii lañuy lañuy ñuy la rawee ñëpp ku raw rek ci lii nga nekk parce que ku nekk ci lii te muy dëgg ci yow nga jéem a roy ki nga xamee ne ki moo tax ngeen ànd yéen ñëpp da ngeen di dem ci kanam rek wala du ngeen dem ci gannaaw ku yàlla may na nga am sëtu yonante bi di toog ak yow boo ñàkkee fayda ba amuloo la nga bëgg ci moom xamu foo jëm ku yàlla may nga am sëtu yonent bi wàcce boppam toog ak yow ci suuf boole la ci boppam te mënoo defaru ba la nga xam ne amuloo sens li leen war yéen ñëpp ku leen gis gis shérif parce que mooy seen royuwaay góor ñi bu ñu leen gisee ñoom lañu leen moom la ñu war a nuru jigéen ñi suñ leen gisee ñoom moom lañu ñu war a nuru parce que loolu mooy li ñu war ci lépp te yàlla baaxee na leen lii luñ leen baaxee la ku ñu baaxee nag dangay xam ni la baaxee lu mu doon du ñépp ko am kon lii ngeen am foog dafa jaadu ngeen xam li ngeen am ngeen fonk parce que shérif boo xam ne bi mën nañu wax maamam ba yegg ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dara ci dañ ngay toog ak moom mu wàcc boppam ba ci suuf te dañ wax ne man tawaadaa lillahi rafaahu llah ku wàcc boppam te yàlla tax yàlla yëkkati ko ñi rawante ñëpp li ñu rawante mooy suufeel seen bopp wàcc sa bopp tolloog nit ñi ci la nit ku nekkay demee mais xogga la ko rekk jëm ci kaw ci suuf rek nga jëm gis ngeen ki ngeen àndal ni mu bàyyee bopp dañ leen naan kii mooy diw am na bu am na am na am na genn façon sëriñ bu ko doonoon buñ koy séen rek dañuy xam ni kii mooy sëriñ bi mais buñ fi ñëwee dañuy laaj dañuy laaj kan mooy sëriñ bi lu tax ak tawaadu wàcce gi mu wàcce boppam Chérif jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sallallahu alayhi wa sallam li ñu ubbee woon rek lan lay waxaat ñun de yàlla xam nañ ni bëgg nañ la ci suñu xol te dara lalu ko lu dul diine ndax am na loo xamante ni sii su lay neex feneen war laa mën a gën a neex fii nag waaw loolu nag moo ñu dal ci yow diine rek moo tax nga bëgg ñu bëgg la diine rek moo tax ñu lay ñaanal nga yàgg fi ndax yow sagu lislaam yépp nga yal na la fi yàlla bàyyi sang bi di Cheikh Mouhamed lamin nga xam ne day référence ci ñun comme ni nga ko waxee référence bu rëy te wallahi du toogaayam bi waaye li ñuy wax yàlla lañ ko seedeel et je parle sous le contrôle de Cheikh Djibi mi Cheikh Cheikh Djibi Sam mi lépp lu may wax ci Chérif bu dee fukk laa ci xam moom xam na ci téeméer bërki démb ci CRD bi dama ne monsieur le maire damaa bëgg nga xoolal sa bopp ci yoof njabootu Cheikh Mouhamed Lamine ndax mas nga leen a gis ci dara loo leen di xeebe moom ci boppam mu ne ma au contraire ñoom ay référence la su dee ji góor ñi fexe nañu ba nu saxoo siqar liggéey jàmmu yàlla loolu rek lañu xamee ab raar su dee jigéen ñi li ma ci gën a neex mooy boo ci gisee ku juddu barki dem moo njaay sax kenn nga ne leen dañ koy muur ndax shérif def na ci ñoom loo xamante ni si duñu ko ko ragale dañ ko koy ruse ndax nit kii li nga koy ragale Mamadou soo ko séenatul mën nga koo def waaye li nga demee ba ruseku ko boo ko gisee boo ko gisul yëpp da nga ca ne kon nag ay dara karaara sa liggéey rafet na ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla yokku la gudd fan ak wér musal la ci pakk ba sa liggéey bii nga dëgg mal di ko defal yàlla subhaanahu wa taala jaare ko ci sa maam sayduna muhammad mu wàcc ba ci sa maam cheikh na cheikh saadu abihi yàlla na ko yàlla nangu wax dëgg yàlla ñuy de imaam sunu bàyyi sunu lépp lu sa xol sedd ba nga tële wax rek suñu xol sedd na ko téeméer ba nu ko tële wax ñuy ndax luñ la waajale wax rek ci lu baax rek xeeb ko ndax nag sa jataay bi sa tànk yi lu rëy rëy rëy ci sëriñ bi la sànq dama ñëw ci néeg bi ne ko imam ndax mu ñëw mu ne ma mukk yow li ngay wax xam nga ko <laughs> man ko ah du ñëw ci mu ne ma mukk génnal ñu jiitlante ma dem ci imaam loolu mooy wane cër ak dayo ak mbégte mi nga xamante ni si tey sa tànk yi am na ko ci ëttam bu sell bi ëtt bi nag ku ne ñëw na fi ku nekkit dina fi ñëw ci kanam tuuti waaye li la leer ba leer ma mooy sa ñëw bii de neex na ko kon nag sàmb yàlla nag fi yàgg te mu wér te mu ànd ak wér jiite gi ngay jiite doomu aadama yi yal na ko yàlla nangu yal na la ko yàlla nangul te nangul ñu ko ñuy benn allahuma boo génnee ci sa gémmiñ yal na ko yàlla nangu ci barke sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku dem nag ñu remplacé la waaye yàlla boo gaaw a am remplaçant ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñun tam kàddu yooyu lañu ne woon man Cheikh Jibi maa ngi jégalu tey dama laa siif li tax ma siif la mooy sama baay laa jàkkaar lool te moom xam na ne awma ci moom sago <laughs> waaye rek maa ngi koy tuubalaat waaw kon jeex na jërëjëf <laughs> jokkalal ci biir ko ëpp solo bi nga xamee ne shérif ni nga ko waxee pour imam ësse yépp benn la kër gii kër alxuraanal karim la waaye shérif dafa jàpp ne fi ñu toog fii la ñu wàccee alxuraanal karim bëccëg bi yëpp tey kon kay li jaaba ba ñu cay yaakaar nañu dem ca place ba dalal fa sa shérif imam alhamdulilah rabbil balaa muy gudd daal sunu sang moom bëggutoon a jël kàddu ci kanamu waajuram waaye dañu koy ñaan moom ci barke maamam mu ñaanal waajuram imaamu ratib Alioune Moussa Samb bu Dakar su paree wax dëgg yàlla ca kàddu yi ñu ñaanal euh, ñaan imaam mu ñaanal cërif ak jaamu yàlla yépp nag wax dëgg yàlla loolu moom danañ ko ñaan sang san si ñaari baat waaye dëgg dëgg mu ñaanal imaam comme ni ko sëñ Modou waxee ñaanal jaam yàlla waaye su paree daal imaam dëgg dëgg ñu lay ñaan su paree nga ñaanal sang bi ak jaam yàlla yépp yàlla nañu yàlla defal sutura ngeen bal ñu wax بسم الله ابتدت واستعنت هديت واعتصمت الله يا الله جلاله هيبته قواه فهب لهذا العبد ما يرضاه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يبقى قولي ايها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الإمام الراتب الإمام الأكبر الحاج علي الصامبو نحييك بتحية الإسلام وينتابنا شعور لا يمكن لنا أن نصفه مما نحن فيه من القبطة والسرور لحضوركم اليوم بين وجداننا الحضور الذي إن دل على شيء إنما يدل على تواضعكم وعلى محبتكم وفنائكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبارات تعجز عن وصف ما نشعر به اتجاهكم لحضوركم بهذه لهذه المناسبة الدينية الموسم الديني الذي نخلد فيه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وهي التعايش السلمي بين شتى طبقات المجتمع ف هنيئا للحاضرين وهنيئا لمنطقة يوف التي تشرفت اليوم بحضورك والوفد المرافق لك فالشكر موصول إلى كل الذين حضروا معك سائلين المولى عز وجل أن يطيل عمرك وأن يحفظك وأن يسدد خطاك وان يجازيك عنا خير الجزاء وان يجازيك عنا بخير ما جوزي به والد عن ولده وشيخ عن موارده وقائد عن رعيته بوكي جولتي بوكي سرين شيخ محمد لمين والشيخ محمد شيبته دوم الشيخ محمد فاضل المامين doomu soxna Lalla Mintu Jee Jee doomu Cheikh Mouhamed Limam doomu Cheikh Mouhamed Vadul Mamin mi ngi leen di nuyu jiital ci nuyoo bi nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi ginnaaw mbégte boo xam ne moo xamante ni sii nag am na fu muy tàmbalee waaye amul mukk fu muy yem sunu imaamu ci sunu imaamu akbar nga xam ne moom mooy imaamu raatib di sunu baay El Hadj Alioune Moussa Samb moom ak délégation bi mu àndal yëpp di am mbégte lool nag di am kontaante lool nag ci teew bi nga teew ci sunu biir yow imaam nee na mu fekk fi nag sunu mag sunu soppe sunu xarit jaraaf maam baabu sàmb baax moom ak sunu mag yi mu àndal yépp waaye mu fekk fii سنو خريب سنو صوبي سنو ما سالتيغي مامو دومبين نيت كوباخ تبارك الله امام شيخ محمد حسين نينا فتبارك الله امام شيخ محمد فاد الحسين سنو واجب nga xamne sunu wayjur la ndax mom ak sunu wayjur la won سنو مام شيخنا محمد بعض المامين يركوتي أتم بولة تبديكو بابا ميترنوم مونيك إمام ويسفار مام مودو بسيليكي توك نلي رونو سجاتاي إمام غالو جوب mu Ngalu bu raw. imaam Diop bu raw. imaam Diop bu raw. ngi fii ba tabarakallah. nee na moom it mi ngi ci jataay bi fa tabarakallah. Cheikh président taalibe yëpp macha allah moom ngi fi moom. nee di président taalibe yëpp ngi nii maanaam njabootu waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak seeni ay taalibe ak seen ay soppe yépp ñoo àndandoo imaam di la tey xam nañ ne sa jot sa kàttan ak sa wér may la yenn déplacement yi waaye sa cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi ak njaboot bi bi la yàlla dénk nee na looloo tax nga la loolu lépp xoolatoo coono bi xoolatoo wéradi gi xoolatoo man gi man gi waaye danga dëxëñ lépp rek ñëw ngir wéttali fa tabarakallah ngir barkeel ñu ngir barkeelal ñu sunu jataay bi kon nag imaam loolu ñu ngi la ci sant bu baax waaye di la ci fësalel sunu mbégte nag bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waay waay yàlla sunu borom yàlla na guddal sa fan mu ànd ak wér waaye waay yàlla na yàlla wéral sa cër yi benn bañ a waaye nag yàlla na la yàlla bàyyi ci sunu kanam ndax kilifa gu mel na yow kat moom la askan wi soxla saa yoo tàbbee ci ñun rek di nga yeete di nga delloo ci xel ci yalla di nga dalal njabot gi di nga layante bir ak ñun te lola nak fa tabaarakallaahu jamono ji kat imam néew na fu ni gisee lola waye ci yow de defa na ni mag yi. ku ci xool lu baax ba daj la xam naa ne bu fekkewul woon mag ñi dina ko gis jeexital boobu ci yow alhamdulillah kon nag bàppa santaat nañ la bu baax gërëmaat la bu baax ñaanal la yàlla bu baax waaye ñoo ñoo ngi sàkku ci yow nga ñaanal ñu yàlla yoon wii nekk waay waaye yàlla bu nu ci gis sunu bopp. ndokk it bi nga xamee bi nga ñëwee fii. fekk nga sunu waajur. fekk nga sunu waajur. Cheikh Daouda Gueye. Cheikh Daouda Cheikh Daouda Gueye. moom mi nga xam ne tey. doyen la ci kër gi. la ci kër Cheikh na Cheikh Sadbou. waajur la ci kër la ci kër Cheikh na Cheikh Sadbou. muy borom xam-xam bu mag. fa tabarakallah dundam yëpp mu jox ko yoon ci yàlla Muhammad dundam yëpp mu sacrifié ko ci yonent bi sallallahu wa sallam bokkit sunu maam Youssouf Bamar Gueye mbokk bind ci ay téere yoo xam ne moom ci boppam moo ko tagg Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baye Daouda daal Chérif nee na mi ngi lay ñaanal yow it yal na yàlla yokk sa taxawaay maanaam daal lépp lu rëy ci ñun. maanaam lépp lu rëy ci rek. muy patrimoine. muy patrimoine ci ñun. tey moo la teeru tey moo teeru fii tey. loolu nag li ko waral. nee na loolu li ko waral. sa yéene ju rëy. bi nga jógee bi nga jógee. ngir tàbbi ci bi nga jógee ca sa kër ngir tàbbi ci ëttu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola moo tax dalal bu mel nii ñu dalal la ko. nee nit. ca yéenam rek. ca kese. la ko yàlla di fayee. kon nag imaam jërëjëf. baxin laka ala baxin. baxin laka ala baxin. gàcce ngalaama ci kaw gàcce ngalaama. nee na li ñu lay sàkku daal. sàmb mooy nga ba ñoo fàtte rek ci ñaan. incha allah bu dul fàtte yi njaboot gi ci ñaan incha allah. asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ñaanal ko ndax moom toogaay bi xam naa ne.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 الناصر الحق بالحق المؤيد بنصر القوي بدين فاقب الملل وأنه المرشد الهادي الصفي إلى صراطك المستقيم المبد الخلل ثم على آله يا ربنا حق قدره ومقداره العظيم يا أمل بحق ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون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 ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناد الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار اب لنا الشفاء من جملة الأمراض الظاهرة والباطنة واسق لنا سقيا فلا يكون بعدنا الظمأ يا معين أنت المؤافي للورى والصافي غيرك لا يشفي ولا يعاف اب لنا الشفاء من جملة الأمراض الظاهرة والباطنة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 فقدرناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين يعني يا للنغو يعني يا للنغو يعني يا للنغو ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم